Babacar maa ngi lay ziar. maa lay delloo ziar Abdou. Babacar nga xëy tey vendredi def sa bula bu saf saf. <laughs> Abdou waa tey moom ajuma la ñuy di ziar ñëpp jullit yi xam nga di ñaan ñaanal ñëpp jàmm. amiin mais itam di ziar sénégalais yëpp. Mhm. muy jullit bi muy chrétien bi. Mhm. di doomu aadama yi fu mën a nekk si àddina bi tey la ajuma. Mhm. bula bi ah. waaw noonu la demee mais bon li moom dama ciy nuyu benn waay suma benn xarit. bi ma xam ne sama soppee la tamit nekk ba Italie. ñu koy wax euh, Mbay sëñ Mbay. Mbay dëkk Kër Mbir mais di dund itali wax dëgg yàlla bi tabaski bi ay quelques jours la ma yónnee lii daal ne ma ñëw ko ah, allah ba Italie la ma ko rafet na rafet na macha allah maa koy nuyu moom di ko ñaanal jàmm di nuyu waa kër mbir ndaw yëpp mhm. di leen nuyu tamit jaajëf kon su ko defee ñu daal di dem seetaan revue daal di dikkaat ci plateau bi asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 30 juillet 2021 ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu làmb la ni xëy doore ko yëglikaay bi di sunu làmb nag tey xëtamu njëkk moom lam ca xëy fesal wala da ca xëy gën fees bokk na ci li nga xam ne ni daal maanaam mooy saison làmb ji nga xam ne boo bëggee dégg daal fa mu dagge li naan xalam demoon na bay neex bu mu gën a dagg looloo am yëglikaay ba nag yemu ca ndax jàpp na ne ñii di VIP yi nga xam ne ñoom dañ daan dóorante ci seen biir ay kaw di am am na nag bi yoon wala boog ñoom VIP yooyu daal soo bëggee dégg dëgg moom maanaam dañoo kawote la loon kawote nag maanaam mooy saison ba nga xam ne tëj nañ ko wala coronavirus coronavirus ba mel ni ki nag fi mu nekki ni daal coow laa nga ne gadd yëglikaay bi ne daal troisième vague ba daal mu ñëw rek fekk VIP yëpp ñu taxaw ku nekk di xaar combat di entraîner di préparer mu dóor leen ku VIP yëpp àndandoo wàcc daal di daanu yëglikaay ba nag moo xëy wax ko wan ñu Boy Niang Tapha Tine wan ñu ka nga xam ne moo di Bombardier ak Balla Gaye numéro 2 ak ña leen tëgg yemu ca yëglikaay bi nee na tey tamit ña nga xam ne ñoom ñoo yore làmb ji wala boog responsable làmb ji ak la nga xam ne moo di presse ba kon xëy na am na loo xam ne nii bëgg nañu ko wax ñoom ñaar boo bëggee dégg-dëgg ñeneen ñoo xam ne tamit daa mel ni mbir moomu moom metti na ci ñoom muy ñaari écrits yi boo bëggee dégg-dëgg Lamsaar wala jàmbaar Wrestling Academy gam ba Papa Sow nekk moom daa mel ni ñoom boo bëggee dégg-dëgg daal mbir ya tar na ba yegg ci ñoom lool ndax si ta Papa Sow ku ne xam na ne waroon na nañoo bëre Maama lamin Garga 2 waroon na ñoo bëre te combat yooyu saa yuñ ko jàppee ba di ko waaj a def ñu reporté ko moo tax yëgle kaay bi daal nee na boo bëggee dégg-dëgg moom wàll Lansar ak waa jàmbaar daal seeni mbir wax na xatt xatt xatt ndax pour ñu bëre fi mu nekk ni problème dëgg-dëgg la doon yëglikaay bi yemu ca am na keneen koo xam ne ni moom maanaam mbir ya bu waxee ci yeneen gaay tamit moom da mel ni xaw naa lewet ci moom muy lig Nicolas ma nga xam ne combat royal ba moom moom moo ko tëgg dox ci diggante Modou Lo ak ka nga xam ne moo di Ama Baldé lig daal yëglikaay bi ne na moom boo bëggee dëgg-dëgg troisième vague ba coow la moom da caa rëcc ndax moom ku ne xam na ne ab combat am décembre bii nu jëm la koy def maanaam kon moom financé gul ci loo xam ne nii lu jëm ci wàllum xaalis la bu baree baree bari wala mu nekkoon ci di waaja tëggub combat moo tax yëgle kaay bi ne ne na moom ay waay jàmmi waay moom soo bëggee dégg-dëgg rëcc na ca mbir mooma keneen koo xam ne ni moom ka nga xam ne rëccagul ci moom ba saa su xëyee di ko avertir wala di ko dànkaafu moo di guy gi digganteem ak rëg-rëg guy gi daal nee na ko datu combat bi lu muy gën a sori gi nee na ko problème rek ne na ko combat bi moom fii ba déwén jéeg lu muy gën a dem jàppal yow rëg-rëg nekk bis bu ñu ca yeggee say problème wala boog bu keroogee moom tama du la ëpp ay buum yëglikaay bi moo xëy tey dalal ko moom guy gi muy wax yamu ca guy gi ñëw na tamit ci cent pour cent géejawaay bi ne na foofa moom problème amu fa ñu ngi koy dund daa fekk ne nag ñoom ñëpp ku ci ne da nga am combat jëlub avance nekk ci sa roq de préparé guy gi ne na moo tax fi mu nekk nii ñoom ñëpp ku ci ne yaa ngay pare waaye terewul tamit ku ci nekk yaa ngay ñaanal sa morom ngir mu am ndam ca la mu dugg keneen koo xam ne nii moom la mu dugg metti na ba yegg ca lool muy Pape Thialis Faye ku xam ne moo tëgg tafaatin daal nee na boo bëggee dégg-dëgg moom nee na ñàkk na lu tollu ci cent cinquante millions maanaam téeméeri millions ak juróom fukk ci boobu komba la ko ko yóbbee nag xam naa ne mooy mbir yi nga xam ne mooy am ci làmb ji saa yuñ ko waajee bëri mbir ya ñu puusaas ko yëglikaay bi tamit loolu la xëy wax nu ko ka nga xam ne nag làmb jooju ñuy wax moo ko jiite muy Bira Sène moom moom daal mu nga xëy tey daal di xëy di wax ña nga xam ne nii daal moo di promoteur yi di leen tagg ndax ne na promoteur yi moom ay patriote boo koy wër Bira Sène ne demal ci promoteur u làmb yi ndax ne na ñoom ñu jël seen xaalis joxe ko muy ay millions yu baree baree baree bari bi mbir mi amee dañ koo nangu ànd ak yàlla xam ne nii maanaam daal lii mooy loo xam ne nii moo di dogal te jaam doy nangu dogal moo tax bira seen ne leen yéen promoteurs yi day ay patriote pire ngeen doon beneen yëglekaay boo xam ne fa nuy jëm muy les arènes les arènes moom ke mu xëy dalal moo di Babacar Ngom moom nag ab médecin la bu yëngutu ci wàllum tàggat yaram Babacar daal la mu xëy xamle nee na risque la ci la nga xam ne nii maanaam moo di nit ki nga nekk ci sport boo xam ne sport individuel la di ci am ñeent fu at juróom maanaam quarante ans nee na loolu moom ay risque gënu koo rëy yemu ca nee na tamit ci biir làmb ji nee na mu neex mu naqari Babacar nee na wàllum dopas mu ngi ci ne gadd fees ci na dell moom médecin ba nag moo ko wax du samay wax feneen foo xam ne nii moom jàmm lan fay woote ba daa mel ni mu ngi fay xeeñ muy diggante tay singa ak bul faale buñ ko waxee nag mooy Mohamed Ndaw Tyson ak Eumeu Sène te ku ne gis na seenub diggante na mu meloon yëglikaay bi tamit ñëw na ci ay mbir yoo xam ne daal maanaam ay combat yoo xam ne yu yàqu la yi nga xam ne ni dañ koo aj yëglikaay bi ne na daal maanaam nu nuy def ba jubbantiwaat ko maanaam bokk na ci Balla Gaye 2 Bombardier Tapha Tine booy Niang Siteu ba ci Papa Sow les arènes moo xëy tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu Pape Thialis Faye tamit yëglikaay bi xamal na nu daal maanaam retouram ba da koo raté de moom bi daal ne na waaj gam doon waaj a ñëwaat moom Pape Thialis les arènes nee na ko yëglikaay bi ñëw na ci lool di nu xëy xamal lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne sun yëglikaay bi ñëw na ci moom les arènes muy mbër moo xam ne nii moom maanaam bu duunu kon ak drapeau sur le table bi moom ab saison dana taq rip ak suuf muy booy fay ndax nag amut benn galaa boo xam ne gagné na ko ren len daal la jot a gagné mooy drapeau chef de l'État ba nga xam ne mu ngi doon amee fa nga xam ne moo doon ca région de Kaolack mu gagné ko yóbbul ko waa région de Diourbel yëglikaay bi na na bu doonu kon ak loolu daal dina metti ci moom lool lool lool lool keneen koo xam ne daal moom moo di Adama Diatta ci Jeux Adama Diatta ci Jeux olympiques ya ya yow daal aadama day mu nga xëy di dal xelu gaaya de wala waa Sénégal nee na daal li koy empêché ba mu am médaille door moom aadama daal nee na loolu moom daa mel ni gisu ko ak ay bët ñun nag loo ci mën a dégg moom boo bëggee dégg-dëgg comme yaa nu représenté fa nga xam ne moo di ca Tokyo ga nga xam ne moo nekk ca réewu asiatique ya ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla nanga nga am médaille door andil ñu ko fii ci réew mi ndax nag xulle lu gën a jege gën a yey te drapeau bi noo ko bok te ay sénégalais moo ko njëkk a wax say mbokk bala laa kenn tagg defe naa bu say mbokk waxee ne baax nga day gën a wóor te Adama Diaté fii la jóge gàddu drapeau réew mi kon yàlla na nga indiwaat médaille d'or bisimila gannaaw ba ñu xëyee vendredi 30 juillet 2021 sunu làmb daal di ñëw ak ñun ci xëtam bu njëkk saison écourtée VIP KO promoteur à bois doy na waar doy na waar la troisième vague terrasse la lutte terrassé na ko de maanaam ñi daan kawote di dóor di dóorante kawote am <laughs> daa mel ni troisième vague bi leen a kawote leen yóbbu teer mhm. trois euh, loolu def tamit lamb lamb ji mhm. ah parce que boo xoolee wax dëgg yàlla saison bi bi mu ubbee mhm. dëkk bi neexoon na na loolu foo tourné lamb jaa ngi yëngu ah gars yi am foo xam ne ñu ngi fay dem stress yi di dañ ñuy dund làmb mais bu ñu demee ba dernier moment ñu ne làmb ji mënatul am dañuy aj yenn combat yi te combat yi desoon li ma la wax lii des li ma la wax démb moo ci ne mooy combat yi sénégalais yi doon gën a xaar waaw parce que tamit ay combat yoo xam ne ay combat de haut niveau la yaa ngi dégg bu ñu ba heure bi nag ah lii ñëw ah du ñu mën def lu dul nangu ko waaye tamit du tere dinañ wax que ni ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite du suñu ay autorité ban plan wala yan yoon lañ ñuy wutal pour ñu mën a bëree suñu làmb yii mais tamit di masawu promoteurs yi encore une fois parce que lu coow li bëri bëri bëri bëri bëri ñoom ñoo jël seen xaalis joxe ko yaa ngi dégg kon ñoom defe naa bu mettee benn ci Babacar ñoom mette na ko téeméer ci ñoom mhm. ñoom ñi génnewoon seen ay millions jox ko ay mbër mbër tamit noonu la mettee ci ñoom ñoom ñi nga xam ne ndax mbër mi dañ koy jox avance mhm. muy préparé wu mhm. tey bu ñu la joxee avance un million nga nga war a préparé wu deux millions kon da ngay wutiwaat beneen un million dolli ko ci deux millions yooyu te da mbër yu ci bëri dund nañ loolu ñoom ñëpp nag ku ci nekk sax ku ci nekk amul ku ko ci yëgul du Balla gay du Bombardier du Papa Sow du Siteu du Boy Niang du Tapha Tine mm-hmm. ñoom ñëpp dafa xam rek Ada Fass ku ci nekk rek maanaam fi nekk nii boo bëggee dégg-dëgg mbir mi metti na ci yow kon ñu leen di massaw muy mbër mi muy promoteur yi aussi di massaw promoteur yi mm, waaw support a mm-hmm. <laughs> <laughs> nga xam ne bu laajee xeex da <laughs> xeexal di la weranteel mbër ba leen gënal sax ah, seen bopp des muy dox dëkk ak dëkk ngir yow billaahi wallaahi taala kenn kenn du moom waaw ba tey massaw ñëpp rek mm-hmm. ba tey sunu ak ñun euh, les responsables de l'arène face vendredi waaw loolu day tey la war a am kon mhm. bon euh, loolu nag am na solo mhm. jàkkaarloog presse bi wax mhm. parce que tamit wax ji daa jot man dama naan sax bu fekkee bu dee seen la moom pour man seen wax dafa taar euh, wax ji moom doon heure bi la ñu waroon wax waroon nañoo wax pour man avant lii te itam lan la wax parce que boo xoolee yaa ngi gis Bira Sène ci ay sorties donc keroog wax na 2STV dégg nañ li mu wax gisaat nañ ko tey ci sunu làmb am na lu mu fi waxaat kon a man de loolu lay déglu. waaye nag seetaan moom. moo ko ci ndaje. waaw li ngeen comme li ngay faral di wax rek ñu yónni yàgg. <laughs> yàgg bawul dara waaw ki nga xamante ni moo di guy gi adversaire de Reug Reug plus la date du combat sera éloignée plus sera difficile pour lui. mu ne ko date bi lu muy gën a yàgg. combat bi di gën a sori waaw. muy gën a métti ci yow ci moom. waaw parce que bon euh, xam nga Reug Reug guy gi. Mhm. li ma la mën a yëgal mooy combat la boo xam ne. bu la neexee mën nga koo tudde saaru règlement de compte mhm. waxuma nag règlement de compte ci lu bon mhm. mais règlement de compte sport la mhm. parce que di tax mooy rëg-rëg dafa nekk xale boo xam ne fi mu nekk nii fi mu taxawee dafa doy waar dafa doy waar naqaree ba leen naqaree daal am ginnaaw lool loolu mooy li am parce que tamit nit ki da ngay wax li fi ne rëg-rëg loolu la am actuellement nekk xale boo xam ne tey ñi ñëpp ñi xam làmb séentu nañ ko ëllëg fii VIP yi nekk te mu ngi ci yoon wi xale bu mel noonu nag nekk si làmb boole ko MMA defe naa ne ah te kombaam ñu dox ay kombaam yu bare bare bare taxawul ba bu kombaam guy gi mujj taxaw ndax mook Sa sax dox nañ ko yàlla dogal déggoo amu fa mu mujje déggu am ci digganteem ak guy gi tey ñoom ñaar ñu war a bëree kenn du bëree ak moom ñu ne la amoo adversaire nga ko gëm mhm. waaye guy gi nag tamit dama lay wax lenn guy gi ñi jàpp ne guy gi mënta bëree juum nañu ñi jàpp ne guy gi mënta xeex mënta xeex juum nañu ndax guy gi mësa gumaa gis mbër du korise ko ay duma ci làmb mhm. te bëri na ak mbër yu bare bare mm-hmm. bare ci làmb bëri na combat bu ne te guy gi li ma la waxoon dinaa ko fàttaliwaat guy gi dem na convoqué nañ ko équipe nationale INSEPS bu nekk Thiès mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. te foofu kuñ fa woo pour war la boole ci équipe nationale présélection lañ ko woon mën ngaa bëre ba mënu ko na bëre duñ la fa woo kon ku mën a bëre la te itam maanaam bu décidé ci làmb day naqaree daan. Babacar ma dool la benn affaire mbër yi fi nekkoon ñu leen ñu ñu ñu naan leen ñoo ñoo fi nekk ñoo fi nekk ñoo fi nekk. waaw ñu ci bari leen arrêté. laay lay la déggoo li ma la wax. Mhm. ba bërki la la preuve bi ci mujj moog Siteu. Mhm. bi mu mujj ba rek Siteu. moog Ama Baldé. bari mhm. na mbër yu ma yu ma stoppé de. yoo xamante ni moom moo leen moom moo leen moom moo leen daan sax. biñ fi gars yi nekkee di metti metti waaw guy gi moo leen moo leen defal bagage. voilà moo tax nag donc combat bii nii Babacar. lu la ci bàyyi mën da bi dina neex dinañ bëre te mystique dina feeñ. waaw waaw te itam xam naa ne ñoom ñaar ku ci ne di ngeen di doole. Mhm. loolu moom leer na ma. ah loolu loolu am na. Mhm. doole. di nga ko fa gis bés boobu Abdou maa la wax lii. sunu làmb daal di ñëw ak ñun ci ki nga xamante ni moo di euh, Papa Sow. Mhm. Siteu Mama Lamine Garga 2. quand le mauvais s'abat sur Lansar et Jambar Wrestling. waaw ñoom moom mbir yi naqari na ci ñoom lool. waa écrit Lansar. waa Jambar Wrestling Academy ba Papa Sow jiite. parce que li tax ña nga xam ne tey tey bu buñ ne jàmbaar Wrestling Academy Papa Sow moo tax ñuy wax. Mhm. ndax ci moom la yàlla dogal écrit boobu am. Mhm. yaa ngi dégg Lansar tamit Siteu ak Mama Lamine nekkuñu ñoo xam ne nii ñoo fa mag. wala ñu njëkk fa bëri wala ñu njëkk faa fayeku million. Mhm. waaye yàlla dogal na tey ñu nekk fa ñoo xam ne ni tamit ah am na fuñ ci niveau bu ñu yegg. rawatina ko mel ni Siteu. te boo xoolee ñaari écrit yi Garga 2 ja nekk ak Papa mu mel ni saa buñ ne seen combat yaa ngi ñëw rek. ay problème am bañ daqaat ko moo tax yëglikaay bi ñëw tey def boobu jàngat mhm. te effectivement lu méttee métti la si ñaari kii yooyu ñi nga xamante ni nañ ci troisième vague bi du kenn ku ki nga xamante moo di le promoteur ni ko lay Modou Lo Ama Baldé le 25 décembre léegi waaw parce que moom boo xoolee euh, mën nañ ne échappé na ci mhm. yàlla na ci ñëpp échappé amiin waaye moom li tax yëglikaay bi ñëwee na gise noonu mooy boo xoolee xam nga mois de août bi la yenn mhm. combat mois de décembre la ko yaa ngi dégg te décembre des na mhm. te xanaa ñaan ñun ñu ngi ñaan yàlla sa balaa mois de juillet bi ya jeex mhm. donte tay la 30 mhm. yàlla na lépp jeex feebar bi amiin yaa ngi dégg waaye moom bu demee ba mois de décembre am nga kon des na ko ay quelques mois si kanam pour combat am yaa ngi dégg kon xay na balaay booba nag lamb ji na mën a ubbiwaat ñu mën a bëre kon moom maanaam coow lii moom wax dëgg yàlla moom lig ak lu mën a xew rëcc na ci parce que financièrement jotu doon na fi préparé sa benn jàkkaarloo en gambi mhm. ba demoon ànd ak bës. Mhm. doxi ko. Mhm. ak autorité autorité gambien yi. mais euh, euh, maanaam euh, pareegu kon ci loolu. far lii ñëw kon defe naa ne moom day stand by ay affaire ba ci kanam. waaw waaye yàlla na yàlla dogal rek lépp jeex. Amin Babacar. waaw saluant le patriotisme des promoteurs Bira Sène nee na moom mi ngi espérer la reprise des combats. waaw promoteurs yi moom c'est des patriotes. te comme li tax mu wax ko mooy ñoom ñoo jël ay millions yu bari dugal ko ci làmb Abdou waxoon naa ko sànq. Mm-hmm. ñoom ñooñu nag tey defe naa ne dañoo nangu li am. Mm-hmm. promoteur yëpp boo xoolee dégguma ci ci ñoom. Mm-hmm. parce que ku génn di wax benn wax boo xam ne wax bu kenn mënta dégg la. te terewul parce que xam nañ ne tamit feebar wala wér-gu-yaram. la santé avant tout ah, la santé avant tout te itam ay sénégalais lañu mhm. ay patriotes lañu mhm. loolu moom defe naa ne seen taxawaay man duma bett ah, parce que mhm. promoteur bu mu ci mën a doon nekk patriote ak nekk sénégalais bëgg sa réew avancé moo tax nga jël say millions di ko def si làmb parce que ku nekk si ñoom promoteur yi xam naa leen ñoom ñëpp ku ci ne am nga beneen liggéey booy liggéey bu leen indil xaalis bu bokkul ak làmb mais dañu ñëw ci làmb investir fa parce yaakaar waaw ñun ñëpp ñëpp moom kay loolu mu yaakaar li ñëpp yaakaar li ah, amin kon na ko yàlla def parce que itam nu ñuy def dañuy toog jëmale ba kañ day metti reprise dana am bu soobee suñu borom yàlla nañ ko ko yàlla def amin amin Babacar mhm. euh, sunu laamu daal di ñëw ñun ci ki nga xamante moo di Pape Thialis j'ai perdu cent de francs CFA ci combat bi nga xamante moo doon am ci diggante Boy Niang ak Tapha ñu ngi koy masawu la mu perdre bëri na trop cent cinquante millions yooyu nga perte <laughs> bëri na la ciy massawu bu baax a baax a baax ndax du xaalis bu tuuti du xaalis bu tuuti waaw ah. di ko nuyu di ko ziar yàlla <laughs> làmb ji daal tëjiwaat ndax nga mën a récupérer mu récupérer cent cinquante millions daa bëri euh, les arènes daal di les arènes la vitrine de lutte sénégalaise daal di ñëw ñun ci ki nga xamante ni moo di Babacar Ngom président des médecins du sport mm-hmm. euh, il est risqué de lutter au-delà de quarante cinq ans waaw parce que moom médecin sport la mhm. Babacar Ngom sama turandoo boobu mhm. li ko yàq rek mooy ngom ji <laughs> ngomen sama sant yi rek ay joob coow mais mhm. tur yi moom macha allah bon li mu wax nag defe naa ne borom xam-xam a wax xam nga des fois réew mi li koy jaxase wala liy indi problème mooy dañoo nangatule lu boroom xam-xam yi yaa ngi dégg te ki jàng médecine rawatina médecine sport bu waxee ne risque la ci athlète bi di dem ba quarante cinq ans ci sport de combat mhm. ah mhm. ah defe naa waras naka bàyyi xel ndax waxu ko pour lu neex nit da mhm. wax ci xam-xam la ko teg dëgg la te xam nag soog a jëf dafa gën a wóor te itam ah man day xam naa daal làmb moom ku nekk yaa xam sa bopp waaye li mu wax daal jar na bàyyi xel de ndax quarante cinq ans tamit du at yu ndaw du at yu ndaw sport lu mel làmb metti na gen metti goo xam ne nii Ah, baax na am na ay coups yu lay dal da ngay yaakaar ne <laughs> asamaan see wàcc sa kaw. parce que Salba. Mhm. bi nekk entraîneur écrit sap mhm. Tony bi dëkk Kër Mbir dafa bëre général Malika mhm. ci tournoi lamb bu Fallou Ndiaye tegoon arène nationale xale bi def ay geste boo xoolee général Koop mu def ay geste technique yu doy waar ba daan général Malika zal ba ni ma ko zal lii xale bi def mu ne ma lii da cee toll mhm. nee boo tolloo ci say vingt ans mhm. jàpp vingt cinq ans mhm. nee na sa yaram nu la neex def ko ci ci sport dëgg la nee na ma loolu tax mu mën a def lii waaye nag bis boo amee trente ans jëm jëm na la waaw euh, ki nga xamante ni moo di Babacar Ngom ba tey mu ni le dopage est bien présent dans l'arène ah waaw ba tey moom moo wax rek loolu itam xëy na moom ma ko wax xam na ci dara ndax man xaw ma dopage man Babacar parce que jàngu mu ko mosoo mosuma xaw ma sax luy tax nit dopewu yaa ngi moom mi ko jàng nag ba xam ko bu ne gis na ko ci làmb ji eh. kon moom defe naa am na fu mu ko teg man it nag lu ma xamut dama cay bëgg a maandu da nga bëgg a maandu waaw euh, les arènes daal di ñëw ak ñu retrouvailles entre Tyson et Eumeu Sène Boul Falé et Tay en phase loo ci mën a dégg daal yàlla nañ déggoo comme la la ci waxoon laa lay waxaat mhm. parce que li tax mooy ñaar lañ ñoo xam ne nii ànd ba neexoon na lool mhm. waaye rek li ma la wax rek des fois ànd moo bu saytaante ni ci dugg mhm. ba yàq ko waaye ñaar ñu ko seq bu saytaane yàqee itam du defar ga du passé mhm. yaa dégg te ñoom ñaar ñëpp ay responsable lañ ay kilifa lañ muy Tyson muy Eumeu Sène mhm. ndax Eumeu li ma lay wax si moom rek foogu seen bëñ fi ngay njëkk gis kon kooku nitu jàmm la mhm. Tyson nag dama koy wax di ko waxaat xam naa dinañ damaa farak moom waaye du mën a ñàkk Tyson farak moom du aay xam nga lu tax parce que exemple la royukaay la royukaay la Mohamed Ndao Tyson moom laa gis bokk na wala bokk lu ma xam ne mën naa ko waat nit mësu ko wax ci làmb baat boo xam ne nii baat bu jubul la Tyson génn tontu la tontu ma ko gis mësul am ba ni mu bëre ba bàyyi bëre mhm. te façon wax bu ne wax nañ ko ko nag ci làmb ndax kuy def ñu lay wax mhm. te ku siwit ñu wax la mhm. waaye moom mësumaa dégg Tyson ñu ne moo tontu Abdou Sali wala tontu na ma Samba wala ma Demba te loolu ci roy maanaam ci exemple la bokk te itam nit nag ki nga xam ne révolution maanaam lamb bu bu amee révolution. Mhm. Tyson moom la bokk na ci. moom moom la sax kon moo ko parce que ay jeunes. waaw nekk ko weddi. ndax moom boo waxee mu ne moom nga mhm. def sol ay américain. waaw sol ko sip mbëri gën a gëmaat seen bopp visa moo ko fi def yaa ngi yooyu bi Babacar dëgg neexul dawal oto dugg stade <laughs> billahi wallahi jour bi muy bëre Tafaage 97 boobu Tafaage air douce a ko indi benn air douce tey xamake ne lu mu dugg see BM mhm. 324 te boobu BM Babacar neexul ba neexul da ngaa bokk ci lamb ay archives yu garaaw ngay wax 97 laa lay wax <laughs> B52 Balla Gaye 2 Tafa Tafa Tine euh, Reug Reug Boy Niang report alternance différée dans l'arène waaw su dee moom xam naa daal loolu les arènes ñëw daal. Mhm. alternance différée ak lu mën a xew. Mhm. ak lu ci mën a xew daal. Mhm. ñun daal ay solution daal lañ bëgg. te yàlla na solution yooyu am. amiin Babacar yaa ngi dégg. waaw daal yàlla na solution yooyu am daal. amiin amiin waaw man daal defe naa loolu daal. mooy li jar li jar a ñaan waaw ah, Babacar. li jar Abdou Koyset Adama Diatta li jar a ñaan la li jar ñaan de beneen mbër ma laay wër Babacar. kan la ci ma nga nii. Boy Faye Boy Faye. ah Siri Sira <laughs> Babacar. <laughs> Boy Faye sauvé par le drapeau de chef de l'État ki nga xamante ni maanaam moo di Boy Faye ba euh, drapeau de chef de l'État moo ko parce que euh, li tax yëgle kay wax loolu mooy ren gañewul benn tournoi mhm. ci li ñu gis ci bappat mhm. maanaam li mu gañe mooy drapeau chef de la gañe ci région de Kaolack la ko gañe andi mhm. ko waa région de Diourbel drapeau chef de l'État nag mooy li gën a mag ci làmb kon moom bu doonu ko nag loolu ñu ne ren saison moom raté na ko waaye heureusement ba moo gañee drapeau de l'État di lu am am solo te ku nekk bëgg nga koo gañe waaw les arènes daal di ñëw ak ki nga xamante ni moo di doomu Sénégal boobu aadama Diatta sur les Jeux olympiques. Mhm. rien ne peut m'empêcher d'avoir une médaille olympique. waaw dina amul lu ko war a mën a empêcher pour ma olympique. Mhm. yàlla na ko am daal. amiin Babacar daal la ma waxoon bi may tëj sànq rek. Mhm. na ko yàlla dimbali mu am médaille mu doon lu ko jik ci kàttanu yàlla waaw parce que représenté. waaw. Euh, Babacar dafa mel ni foofu la ñuy ndar képp de. macha allah di ñaanal sénégalais yëpp jàmm di leen jox incha allah di daje leen di ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi li di corona daat fi jógee ci barke Cheikhul Khadim sunu yaakaar tey ëllëg. di ñaanal sénégalais yëpp jàmm baax balaa ngay ñaan sax dinaa nuyoowaat rek. parce que mm-hmm. du mën a ñàkk parce que xam nga des ñun dafa am ñu seetaan. Mm-hmm. te ñi ñuy seetaan amuñu seen fay ñoo jën seen ay connexion di ñu seetaan kon fu ci waay nekk rek yal na la yàlla defal jàmm barke nabil Mustafa sallallahu alayhi wa di wax ka ni corona bi yàlla na ko fi yàlla jëlee di nuyu suñ soppe yëpp cent pour cent Babacar sama soppe yi mhm. fan sa club leen di béggee mhm. fan sa club Equivox ak Babacar tamit maa ngi leen di nuyu mhm. ñoom tamit awma seen fay di nuyu waa axlu lamb ah groupe groupe lamb yi ne Sénégal yëpp maa ngi leen di bégge di leen siyaar di leen réew mi moom réewum jàmm la yàlla yàlla yokk jàmm ji comme na ko góor gu baax ga yàlla na ko yàlla yërëm mhm. góor ga yof naam ko doon waxee si defam mhm. réew mi am na jàmm yàlla na yàlla yokk jàmm ji loolu tamit la ñuy ñaan Abdou di la bégee waaye Babacar bala ngaa tëj dafa am sa benn fans bu nekk Espagne ki wax Alioune Tall Alioune Tall chaque jour danaan ma Babacar neewal ma ko li muy def mi ngi rafet te wax dëgg yàlla làmb ji am na ci cër macha allah ma ne ko nag su yóbbante Babacar dina ko dégg incha allah mm-hmm. rabbi ma nga ca diwaanu Espagne dinaa la jox numéro am nga jox koog moom ci kàttanu yàlla la te am murid la est loolu am na solo ndax Baye Fall ak murid moom nekk ko mm-hmm. daa wóor waaw ñu ciy profité di nuyu Baye Fall yeeg murid yépp mm-hmm. waaye di nuyu tamit tarixa yi ne yépp ak diine jépp alintaal moom tamit maa ngi koy nuyu depuis Italie wala boog depuis Espagne moins maa ngi jéegulu alintaal yàlla na sa jàmm yàgg ñoom tuuti yaay saax mais sama jigéen xadiros borom Allemagne yàlla na jàmmam yàgg Abdou waaw yow yàlla na sa jàmm yàgg waaye kenn du mbay mbay kenn du moom borom kër gi sëñ mbay moo mbaye def nii mbay de waaw mbay de bu defee nii mbay wàcc na moo tax ñu ne mbay waaw kenn du mbay yooyu mbay xalifa yaay daba njaay Babacar Sadikh mbay